Abdou Ndaw sëriñ bi nee na mu ngi ndokkeel Cheikh Abdou Ndaw mu ngi siyaara Cheikh Abdou Ndaw dana doy na rek Cheikh Abdou Ndaw dana waxul rek xamante bi xamante dana waxul sax mbaaxam nee na conférence bii am tey nee na am na ay at jamono bii mu dëkk fii ci Dakar. saa bu conférence bi jeexee. nee na saa bu conférence bi jeexee. ñëpp lay màng yóbbu këram. nee na ñëpp lay màng yóbbu këram. ñu lal ay basan ci mbedd yi. ñii ci ci kaw étage yi. mu dogal leen ngir yàlla subhanahu wa taala. ñëpp ko benn at ñaari at ñetti at ñeenti at ba juróomi at. ëpp na ko sax ëpp sëriñ bi ne kon ku def lu mel nii xam ngeen ne. su ñëwee ci mbooloo mu mel nii ñu koy defee. la gën a yeey ña nekk ca mbooloo ma. la gën a yeey def ci moom fàttaliku bu wér. waxtaan waxtaan bu rëy. am na benn conférence boo demee fële Saalum. am na benn conférence bi mu doon defi Saalum. maam mii moo ko ëllëgoon kër. nee na maam seet ko ëllëgoon kër. dem ci yoon bi. am lenn ci xale yi. seen oto paan mu romb leen di dem conférence moom it moom ci abdom ñeneen lu ngeen def fii mu ne suñu oto bee paan mu yëkkati cent mille francs jël cinquante mille jox Omar naan ne cinquante mille yii de defara leen ko oto bi te pono bi rek moo kuy def lu mel nii ñëw ci mbooloo mi koy defee te wogu te moom day xaw a am looy niru. mooy nifaax. ak suul jëf. te sax yaa ne ni moom de du nifaax. te du du suul jëf. kon nee na mu ngi ndokkeel Cheikh Ndaw. ñaareel bi Cheikh Ndaw. ñaareel bi day dem ci conférence yoo xam ne nekkuñu fa ñun. day nekkuñu fa. mooy seede ci ñun ay wax yu leer wax yu leer.